gis na jamono ji ñu toll nii mbalax bi coow li Waly Seck indi Sidi Diop indi Sidi Diop indi Tarba Mbaye mais grand ñu bëggoon xam loolu yëpp na ngeen ko gisee coow loolu noonu ndax loolu war na am ci musique senegal war warul am. non non loolu sax boo gisee maa ngi nuyoo ba pare. di leen delloowaat nuyoo bu baax a baax. boo gisee loo sax euh, génération bi moo a loolu ak coow mais kenn ku ne xam na ne aar bi dafa yaatu. te yaakaar naa ne concurrence bi mënu ñàkk ci dara parce que mooy tax sax mooy tax sax mooy tax sax ñu gën a góorgóorlu mais su ma sañoon daal ñu def ko defet boo xam ne dana rafet ba nga xamante ne nii coow ci am parce que Waly Seko Sidi Diobo Tarba Mbayo ñoo bokk lu ñuy def yaakaar naa ne yaatu na yaatu boo xam te ni géej la na fi ba tax na dafa rafet daal ñu leen fi jiitu boo xoolee ku ci mel ne Youssou Ndour Omar Pène ah, ndem si yàlla ndongolo nga war a xam ne musique bi jarul loolu jëru ko parce que ñoom ñoo ko mën a yóbbu fu ne comme fi ko Youssou Ndour andi nii ñoom ñoo ko war a jël mottali ko ba xam ne bu ñeneen ñëwee seen rakk yi dinañ gën a def bon exemple boo xamante ne ni doo amati coow parce que jëru ko daal Youssou Ndour kii euh, Wally Seck Sidi Diop Tarba Mbaye macha allah ay ay jeunes talent lan mën nañu woy mais bu ñu xëccoo daal d' accord ma xëccoo bi waaw d' accord ma xëccoo parce que comme li may faral di wax rek man moom melam maa la damay déglu mbalax ñun ñëpp laay déglu mais Wally sama Wally moom waali sama waalee moom dama ko faral ndaxte Baye Fall gi mu doon ba pare doon nit ku baax dëgg la sax ñoom ñëpp a baax mais man li nga xamante ne nii moom laa capturé ci Waly Seck dama koy wax. mais dañu gis ne Sidi même bi muy tàmbale sax maanaam boo xoolee ni mu jiitalee Waly ci liggéey bi dafa mel ne que dañ koy influence wala nu mu demee noonu. dëgg la man waxtaan naa ko foo xam te ni yéen ñëwu leen fa entourage am wala boog ñi nga xam te ne ay fansam lañ. Mhm. ñoo lay yóbbu ci benn niveau boo xam te nii mënal sax yàqal mais li mu commencé woon noonu bu ko continué woon. mën na am dara parce que Wally soxorut boo gisee seen première duo bi ñu defoon ci benn concert benn soirée Sidy Diop ñëw fa di woy ba see turandoo ba Serigne Saliou ñëw fa mu naan ko Wally baatareel ma ko ndax sama rakk wax ci moom lu rafet Sidy Diop woy fa lu neex. waaw fan ñu ngi koy gis ñu koy sànn ci réseaux sociaux yi. Ah. parce que loolu dafa dafa ma marqué woon parce que ma dama dama bëgg musique ba nga xamante ne nii ma dama déglu lu dul mbalax mbalax rek laay déglu. gisee Sidy Diop wàcc ah moom tamit ku mën a woy parce que ma dama bëgg ñu ko xam ne day woyee day woyee jom ak talent. parce que baatam yegg na foofu capacité yegg na foofu mais daal na gën a góor góorgóorlu na gën a góorgóorlu bàyyi xel ci ci lu bari daal parce que fan si mën a la yàqal sa entourage mën nañ la yàqal concurrence day da yóbbu fa sori daal mhm. dina tax ne dina tax nga siiw dina tax ku la xamul woon xam la ndax coow li ñuy dégg nag kii mooy kan ñu ko kii mooy kii lii lay def lii lay def day day ah, mu day diirante mbagg kii ak kii ah, Wally Seck wala Tarba Mbaye jore ko daal man daal li ma koy xelal mooy mhm. man na woy jàmbaar la te góor yàlla la moom tamit ma daal su ma soxla xam nga laa koy mhm. mu gën a góorgóorlu bàyyi coow li liggéey dem sa kanam parce que kuy yoot du saqat. a na nga def maaleykum salaam. noo tudd. man Ndeye Ajara laa tudd. nan. Ndeye Ajara Ndeye Ajara Ndeye ah, man de man man de xamal lan moo ma jaaxal. man Sidi Diop moom dafa ne woon dafa bëgg a waali waali ba koy rusa sa xool. su demee ba toog nag bay jël eenanteeg moom waali man affaire boobu daf maa jaaxal daal. kon moo jaaxal Sénégal. waa moo jaaxal Sénégal daal. jaaxal rawatina fan sa waali. Ah, man de man fan sa waali laa man Pikine laa dëkk Sidi Diop laa waaye man na waali ma ko bëgg sama xol man waaw. waaye nag doy na waa daal ñoom daal waali waxul waali waa waxul dara ñoom daal ñoo ñooy jël seen wax di tasaare diwri waaye ba tey déggu ma waali mu kaas si wala mu wax si dara Sidi Diop tamit déggu ma bu kaas waaye daal man daal lépp si lii laa ko teg. jox Sidi Diop laa jox toor gi Sidi moom da daan ñëw waali di ko teral di ko defaral yu baax ah mu jékki saa rek xam nga rek moom mooy loolu. mais dafa mel ne moom la loolu la ñëpp wax foo dem loolu la teral. waaw da nga daan teral billaay waa Sidi Diop waali teral Sidi Diop ba xam ñëpp àddina moom loolu ñëpp ko xam waaw bu demee nag ba tey jii nag mu demaat di lii. di ko waxaat na man affaire bi jaaxal na ma. waaw léegi yow léegi fi mu toll nii tiitu leen ci mbirum Ah, mbala mbalaxu senegal fi mu jëm ëllëg ci nii la nar a demee. billaay waali waali du waali day dem barki Mouhamed day dem kenn du ko téye waali ndax xol bee rafet. maaleykum grand noo tudd. Bada saa tudd Bada. Bada Bada dañu dégg fan yi coowlu Sidi Diop Waly Seck Tarba noo ko gisee. ah ñooñ dañoo xamul rek dañoo xamut Waly Seck war woon dugg foofu sax amu fa palaas waaw dañu gis ne Waly Seck dafa def émission ak Bouba Ndour ne Youssou bu ko mayee mu génne morso sargalee ko ñu gis bi muy génne law Sidy Diop di génnee. mais lool yëpp du ci dara loolu yëpp ay coola rek Sidy moo bëgg bës rek bës la bëgg rek yooyu yëpp bës la rek bës lay lijjanti rek moo tax mu tax foofu di ci dugal ay wax mais ñun xam nañ quoi waaye du moroomam bilaay. mais Sidy ak fi mu toll nii war na mën a foofu lay utee bës. foofu lay utee bës foofu la gën a mën a jaar pour ñëpp xam ko yaa ma gën a xam. mais du ñu gis ne ku ñu mel ni yéen nga xam ne yéen musique ngeen di déglu mbalax bi mais fi mu toll nii gars yi waru ñu mën a tiit. mbalaxu senegal fi mu jëm ëllëg. noo ci lan noonu. ci coow li. waaye coow li lan coow li daal moom mbalax bi ñoo ànd bàyyi noonu lañ koy dundee. mais ñoom ñoo war a yor ñoo war a doon ñoom Youssou Ndour ak Amar Pène. ah mais dara. si nii lañ koy donnee. ah ci naan waaw mais dara ñoom ñëpp bës lañ bëgg rek mais Wally nag moom xoolal dafay nekk nag instant yi nii moom da ci toll quoi. kon dañu gis na drapeau bi ginnaaw Youssou Ndour rek mag ñi Wally bi nekk yëpp Wally Seck mooy bombu instant yi buñ ko waxee ak buñ ko waxut ñëpp xam nañ kon njàngat bi loolu képp la kese jeex na tàkk asalaamaaleykum maaleykum salaam. noo tudd. maa ngi tudd Mounas. Waly Seck Sidi Diop mën naa ne ñoom ñaar ñëpp ay jeunes lañ te ñun gone yi dañu leen di déglu dañoo war a joxe euh, un joxe un bon exemple man seen diggante nu mu fa demee man neexuma benn yoon parce que man mënu ma faree côté bi faree côté bi mais ñoom ñaar ñëpp dama leen di déglu te xool naa ba xool ñun dañ leen di déglu ñun sën yi dañoo war a joxe un bon exemple. waa ñaari kuy nag duñu bokk mbalka nga ni ñaari kuy. waaw ñu bokk mbalka dëgg neexul faramaame ren bi ngay waxal xale bi nga ni lan faramaame ren bi moom ngay waxal de xale bi xanaa xamoo ne xaalisu musique lañ ko ngéntee barki Serigne Saliou xanaa daam la bokk ak waaw Waly famille man maay code famille dëgg du neex man maa ko bëgg piir nii ci sama xal bi sama xol te xale bi daa ñëw fekk li jeunesse bi bëgg mu ànd ceeg ñoom barke Rasulullah famille bi ngay waxal de caatu Waly Seck boobu waa doomu con Seck la ñu wax ak ki Kiné Diouf dëgg neexul mboq moomi waaw boo duggee foofu da ngay laal laalaakee dëgg neexul na xale boobu ngay waxal xanaa xamoo la ci famille bi nga ne gunii ci famille Waly Seck fa nga ne gunii barke yéen a xoola waaskat ba waale la ñuy bëggee. kon marché bi waalee ko moom. ma bëgg suñu raq la dëgg neexul ñoo bokk aar ba mais na topp ci suñu ginnaaw na topp ci suñu ginnaaw bu yegsee fi ñu yegsee rek dëgg dina neex. kon nga gis ne kon fi mu toll nii li waale def Sidi dafa ko matt titin boobu Sidi juddoogul bi ñuy matt titin ñun boobu Sidi juddoogul. da ngeen doon da ngeen ramb da ngeen da ngeen ko da ngeen koo fayet. ñun xam nga banlieue lañu Pikine lañ dëkk. dëgg la damaa bëgg dëgg bu ñëwee nga wax ko ba mu jeex. dëgg la barki Serigne Saliou Mbacke waale xale bi li muy way dëggantaan Njaay la Sidi tamit li muy wax ñëpp dégg nañ ko mais damaa bëgg kenn du méngole ñaar ñu bokkut ñaari kuy bokku ñu mbalka barki Cheikh Béthio Thioune man ngay wax. fi fi fi mu toll nii lan nga yóbbante askanu senegal ak wàllum musique ngir jàmm am. waa xoolal ñun Sénégal dëgg du neex ñun ñëpp ñoo bokk na ak baay. yaa may dégg kon aar bi daa war a rafet. yaa ngi may dégg Sidi li Waly Seck xuus nga fexee jàll foofu moom mu ngi def de mu ngi def de xale bi way rek lay def mais damaa bëgg ñuy ñuy ñuy tëkkale ñuy tëkkale ñaar ñu bokkut. na fexe jaar si magam jaar na topp ci ay tànkam ndànk waaw man bëgguma kuy jël siin ak saalum di leen boole nga ni siin ak saalum kenn du leen boole barki yonent bi te siidi fu mu ne daa ne ci ay tànk te kii dem na ba pare